nekk am naa ak moom doom ba mu jógee Espagne yaa ngi dégg amoon na beneen jëkkër en même temps Sénégal muy ñaar mu jógee Espagne dem Sénégal jógee Espagne dem Sénégal amaat fa jëkkër bu ñuy wax Assane Kane ñoom ñett ñëpp di kattandoo ci même pax kenn xamul kuy sa jabar léegi nag day arnaak nit ñi ku mu dem danaa la dama am problème mu xol sama geres nangam nangam lii day yëngu ci Abdoulaye Diop xaas la dugg. daa am daa am ku may woo coupé tax nekkuñu ci weeru koor mais coupé tax ma xëddee la ndeyam daa am ku may woo maa ngi gis appel bi léegi problème bu mag laa am ak sëriñ Abdoulaye Diop xaas da koo bëggoon a arnaque comme ni muy def ñeneen ñi daal di dem ne sëriñ Abdoulaye Diop xaas da koo yoreel xaalis ak nangam nangam nar koo arnaque ndeke moom mooy triant bi. mais bi daal mën naa rangaleef téeméeri koy ak juróom-ñett ku nekk mën ngaa kat te nee na woon amul doom de amul doom la wax te am na doom bu nekk Espagne léegi nag damay daal di dugal euh, kii dama damay daal di dugal ma. ok léegi est-ce que mën ngaa mën ngaa expliquer booy yi ci maire boobu noonu nga xam ne mooy arnaqueur bi loo xam ne pour mu gën a leer. waaw waaw waaw waaw bon tout d'abord maa ngi nuyu gars yi ngay seetaan ci direct bi mais sànq tàngoon nga de mer nga de xaw ma nu mu demee noonu. non man kenn du ma tooñ. <laughs> non yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na euh, woo nga wax ko seetaan waaw bon di nuyu sénégalais yi rek quoi ci euh, gars yi lay seetaan ci direct beeg yooyu. bon affaire bi cas nu mu demee mooy ñun dañoo toog ñun Dakar Live TV. bon ci eh, kuy gérer Dakar Live ba pandane pako dañu top ben moment rek ben eh, daam woñu moy dab bobu soxna sosu muy Adama Arlet Ka. waaw bam ñu woyé e, mu wo di joy di xiixat woñu joy joy bu metti ndaysan mu xamal ñu ne dafa feebar sëriñ ñu mu dem bépp sëriñ bu mu dugg rek sëriñ bi da koy arnaqué nangu ci moom Euh, xaalisam bu mu yor yëpp. instant yoratul dara te dafa nekk ci problème bu sérieux ok léegi nag euh, mu wax ñu exactement euh, ñu jàppale ko te a tax. damay daal di wane photo mère bi en attendant gars yi xam ki ni waxal. waaw am na solo. ok continuer bay. waaw léegi euh, ba mu euh, ba mu ñu expliqué loolu ñun euh, nga xam ne ñun presse bi tamit ñun dañu duñu nangu injustice fenn ñu ne ko dinañ la jàppale sëñ Ablaye Diop Xaas amul doole te incha allahu rabin bu fekkee ne doole rek. may leen ma may leen ma may ma wax tuuti. gars yi maire baa ngi damaa bëgg ngeen xàmmee ko. fi mu toll nii nekkoon mais mënatul dugg Espagne. mënu faa dugg ndax dafa arnaan ñu bari ñu signalé ko. maire baa ngi nii gis ngeen ko xàmmee leen ko. léegi continué Adama Arletka. continué. waaw léegi nag bañ ko waxee loolu ñu ne ko yàlla rek moo am doole kenn amul doole te bu dee yoon rek dinañ ko taxaw dinañ la jàppale ba nga ba nga mën a récupérer sa xaalis yëpp maire bi lu mu ñu njëkk a wax neen dafa am feebar problème mu xol nee na dafa nekk euh, ci problème mu xol te euh, opération bu jotoon def sax ah euh, que moo kalilu Fadiga kalilu Fadiga joueur ñoom ñoo ko defandoo woon léegi Euh, ñu ne ko comme loolu la demee euh, dinañ la taxaw bu baax a baax a baax te ñun comme ñun presse waruñu jël benn parti rek dañuy jël parti yëpp ñu toog benn moment gis ne que maire bi déposé na plainte Ablaye Diop Xaas Espagne yaa ngi dégg mu dem Espagne di fa nekk ci benn kër kër boo xam ne auberge la ko defoon mooy këru cagatu quoi nekk ci benn kër kër boo xam ne en fait euh, lu bon lu bon a tax a jug koi am na sax benn daam bu tudd jaara boo xam ne moom la nekkaloon ci kër gi euh, muy entré ay góor ak yooyu noonu yëpp bon su toogee di arnaqué tamit nit ñi nekk foofu noonu di leen di leen di leen di leen di leen kii daal di leen di leen euh, bon am góor yoo xam ne tëddee leen moom moo tax. après ok léegi maire bi maire bi état ñoom. bon am na kàddu yoo xam ne sax en fait rafetul a wax. te non non rafetul mais man mën naa ko wax ci dëgg bi quoi. maanaam maire bi instant bi moom amoon na jëkkër. Sénégal am ak moom doom. waaw ba mu demee ba Espagne jël fa ab mhm. auberge indi fa ay nit di kat ci ci gàttal. <laughs> waaw ci gàttal noonu la demee. ci gàttal daal maanaam moom. da lay nga koy kat. waaw waaw ba ci en plus de de de ci doon. da ci doon liggéey di ci fay location am ak yooyu yëpp. di ci ah, dundee daal ah léegi kat gi nga xamante ne moom la ko ñeneen góor ñi di kat. kat googu da ciy fay location di ci gérer ay frais. fële ci da ci gérer ay ay mbiram daal waaw. ok léegi nag ñu dem ba ci biir mu dajeeg benn waajoo xam ne waaju baax boo xam ne Espagne la nekk xam naa ñu nekk Espagne dinañ xam bu baax Adama Arlet Ka dina bëri sax yow Adamo xam naa bu ñu coupé ci bi dina bëri ay nit yoo xam ne dinañ la témoigner jikko soxna si jikko mère bi hmm. Adama Ka wow, nak mu am ben waji joo ku bax la waji dégg sax wow, Espagne. waaw mom fa la ci euh, bon euh jakarna dal ba ma gars yi doon wax exactement amna ci côté Grenada bi côté ok mom dal en privé la. waaw nak amna ben waji def na ci presque ay plus de vingt euros. même ci feebaram bi lay euros mais defal ndànk vingt cinq mille euros nga def ko ci lëf ci data boo xam mais maire bi ban data la fi yor data aji sa te waaji te waaji lu ma jaaxal aaduma waaw waajooju ko takk dégg naa ci ci gàttal waajooju musu ko gis teg bët benn yoon la ko musoon teg bët moom mooy boobu jour boobu mu feebaroon maire bi nekko ko feebar mu yónnee ko dix mille euros ah <coughs> waaw baal ma mu yónnee ko dix mille euros ba mu ko yónnee dix mille mu toog daal xelam xelam tey mu ne maire bi ne ko dafa entré hôpital Espagne waa ji ba demee dëkk boobu mu mu entré hôpital dafa wër hôpital yëpp gisul maire bi ci la xam ne maire bi kat jubul du ku baax. Adama Arlette waaw léegi ñoom tamit kenn gënu leen def yow xanaa boo dee ah, investir ci data. nga investir ci data xale mais data maire ay màggat. nga investir ñoom plus de vingt cinq mille euros ci lëfu màggat koo xam ne ni benn tànk ma ngi fii beneen baa ngi yow mal xiyaam nga yàq sa fere data ci dara te mosoo koo gis sa waay na loo xam ne mentalité zéro. Cheikh waaw yéeme na lool sax yéeme na yéeme na lool. après nag dem ba ci biir. waaw soxna si mu am ay problème yu sérieux en Espagne. waaw am ñu bëri ñu mu triyande mu jaral ko mu ñi avant mu ñibbi Sénégal dajee nag benn sëriñ sëriñ Assane Kane. waaw moom boo déggee ci investigation yooyu nu ñu defoon am na ci sëriñ Assane Kane da ko doon ñaanal ñaana ko tax a ci jëmm jooju jàppale te yàlla tax ñu dem ba ci biir euh, sëriñ Assane Kane bañ démé euh soxna si né ko man Serigne Assane kan dama la bëgg bo ma boo ma taxul jaral nga ma xaru. mais est ce que père bi yow japoné amna ay affaire mystique wala Serigne. non man doyna war man soxna si dal xawma num démé non amna Serigne dé ndax mo ah, koy bàyyi ni récupéré ba paré di récupéré sen xalif doyna war dé Serigne Assane kan waaw mu gis né ko kat gis ko xamné bëgg na la dafa jafé té dafa dafa dafa doy war waar. Gold mang lay ziar Omar. vraiment ak talibé Mouride bu mu don vraiment. te am na ay taalib yoo xam ne sax kilifa la gu ñëpp xam Sénégal. kilifa gu mag la bu ñëpp xam Sénégal. ku baax la tamit bu ñëpp ràññee. baax la sëñ Assane Kane ok sëñ Assane Kane lu mu seq ak ndaw si. moom laa le euh, ndaw si def ko sollicité woon pour mu ñaanal ko sëñ Assane Kane nekk ci ndaw si ñu dem ba ci biir mu dawal mu dawal mu dawal cofal ci sëñ Assane Kane ne ko damaa bëgg nga takk ma. waa dafa ndànk mais Serigne Assane Kane moom ci boppam day ñaan Serigne la. day ñaan waaw sëriñ la. léegi ndaw si dafa dem ba ca biir xoolatul ñaan gi koy ñaanal mu ne ko dama laa nopp damaa bëgg. dama laa waaw bëgg. léegi nan la sëriñ Assane Kane doxale sëriñ Assane Kane. Euh, fekke ko ci bëggeel gi. non sëñ Assane dafa ne bu fekkee ne moom comme moom jaral na ko xaru. parce que ndaw si dafa ne boobu bu ko sëriñ Assane Kane dafay xaru. jaral na ko mu dee. waaw nu muy naxee nit ñii rek. comprendre nga mu ne dala nan dala nan dala nan sama dund bi xaro mako gënal comprendre nga xaroo ma gënal la lay wax nga mujjé mir voilà finalement da ngay mujjé dugg ci piège am ndax parce que yow yow da nga nan ab doomu adama dula jaral nga yow ngay mom ma mom moom ma euh euh dundam ngir ben jëm finalement mu d'accord seigne Assane kan non la jëlé soxna si tak ko avant mu ñibi Sénégal té ay ay taalibeem xamal nañ ma nenañ ma Serigne Assane Kane balaa muy ñibbi asafurlaa soxna si balaa muy ñibbi si Sénégal Espagne bi mu nekk rek tas na kër Serigne Assane Kane à distance Espagne Sénégal nu mu sorante Adama nu mu ko defee. Euh, ay ay njabootam ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp feewoon na leen jaxase na leen parce que balaa muy ñëw rek indi na fa problème ba ñëwee nag indi gën a indil sëñ Assane Kane problème ba topp ko ci yoon parce que nee na ne sëñ Assane dafa lekk xaalisam daf ko triande dafa def yenn affaire te sëñ Assane kan sax mom la lay wax euh cité bu mag la am féné ca Touba. waaw yaakaar na né ca ties boog la bëgg a wax manan manan Touba. kon yaakaar kon daal Serigne Assane kan ties ñepp ko wara xam. ñepp ko xam ties sëñ Assane kan ok légui Serigne Assane kan nan la démé mariage ak ndaw si lan mo ca xew. waaw problème mo fa xew. Euh, bañ ba ma ba ma xóotee pour laajte parce que bëggon nañ am sax Seyd Assane Kane jël ko interview mu expliquer cas bi vraiment temps yooyu mais Seyd Assane Kane période bobu nonu dafa xawoon jafe ay talibam ñoo waxoon ne dinañ ko gis dinañu may interview ñu expliquer ñu réel problème bi exactement nu mu def ba tas ak soxna si mais lu ñu xam ci gattal dal moy ndaw si dafa tas kër gi premièrement deuxièmement aussi tamit dafa top Seyd Assane Kane en justice ñoo la ko toppee ba nangu benn 4-4 Prado boo xam ne sëñ Assane Kane moo ko moom ca boppam comprendre nga ñu dem waat euh, mu jubluwaat mu ne man kat sëriñ yi duma ci doyal comme am naa liggi ci sëñ Assane Kane xaar ma dem séntu ji keneen. kan moo ci gën a am doole daanaka ah. léegi xaaral léegi sëriñ Assane Kane. waaw sëriñ Assane Kane léegi nan la def ba ba ba maanaam sëriñ Assane Kane nan la def moom moom ak bi seen sëy ñoom ñaar nan la demee. waaw à distance day sëy ci kayit wala waaw xam naa sëy sëy nañ ci kayit mais mais lu gën a leer mooy à distance dañu sëy mu mujjee tàggoo ak moom tàggoo ak moom boobu nag ndaw si nag mu profité ne ko danga maa yorel danga maa triande ñaan yow ñaan yu ñaanlu yu ma la ñaandu jox naa la lii jox naa la lii jox naa la yaa ngi dégg léegi Serigne Assane Kane laal na booy bi wala laalu ko laaj nga ko loolu ah loolu moom desee naa ko xam pour wax la dëgg ndax xam nga en général bu affaire kat amee rek la la la ñu dem ci yoon bu ñu xoolee experts yi comme Kaawu Adji Sarr ñu ne kii jot naa dugal ay koy ñu récupéré ay affaire am xam nga jigéen ñi dañoo muus mais jotul laal mais xam nga xam nga xam nga loolu Adama des des na kaa mun a wax parce que sëñ Assane Kane kilifa la vraiment waaw kilifa la wax nga dëgg ah non comme kilifa la garaaw garaaw ku jara la ab taalibi garaaw kon on faral les continuel waaw waaw Serigne la vraiment léegi daal ci gàttal daal lu ñu mën a xam daal mooy daal ndaw si daal dafa triande sëñ Assane Kane comme moom ñam na ci sëñ Assane Kane xaalis bu duuf rek mu ne comme man sëriñ yi nii la mel bàyyi ma dem jubaliwaat ci keneen. waaw ci la ci la ci la dajeeg sëñ Ablaye Diop xaas. jëkkëru sumbulu. jëkkëru sumbulu. waaw waaw sëñ Ablaye Diop xaas xam naa ñëpp xam nañ ko fii ci Dakar. Mm-hmm. ba mu dajeeg sëñ Ablaye Diop xaas. sëñ Ablaye Diop xaas la même chose aussi tamit dafa am kenn mm-hmm. ci kenn kum doon jaar parce que sëñ Ablaye Diop xaas moom en personne sax neexut a jot. Mm-hmm. pour nga wo ko ba jot ko rek problème la parce que dafa am ci ay hiérarchie yoy jaar quoi da nga am da ngay mhm. jaar ci ci ay ay ay bëkk néegam jaar ci kiyam ba nga jot ci mom ok légui mom ak jëkëru subulu nan la demee waaw nak euh ben ci ben waju tuddu katim ci la jaar katim la tuddu soxna si di envoyer chaque jour katim message ba sax soxna ci sax dafa mel ni dafa xamone ne seigne abdou Diop khas moy waaja mu piège xaatim kaatim di ko proposé di ko may xaalis wala di ko di ko offrir ay cadeau ba kaatim boole ko sëñ Abdoulaye Diop Xaas soxna si ba mu ñëwee njëkkee ñëw ci sëñ Abdoulaye Diop Xaas daf ko ne dama am problème mu xol problème mu cardiaque faj nañ ma waaye ba léegi dem naa ci sëriñ bu nekk lekk nañ sama xaalis damaa damaa damaa tumuranke instant yi difficulté yu mag laa nekk damaa bëgg nag nga jàppale ma te yàlla tax hmm. sëñ Abdoulaye Diop Xaas comme moom dafa am yërmande mu ne ko amul problème dinaa la jàppale soxna si tamit ne ko aw ma sax fu may dëkk aw ma sax fu ma nekk dama jaaxle xaalis moo yor yëpp tasaare nañ ko sëñ Abdoulaye Diop xaas comme moom comme sëriñ yi nu ñuy def rek dañuy tabax denc dañuy tabax dañuy gis benn terrain jënd ko tabax denc jënd tabax denc sëñ Abdoulaye Diop xaas ne ko amul problème comme amoo foo dëkk man dinaa la jàppale te yàlla tax waaw soxna soo kër sëñ Abdoulaye Diop saa su ne ci la fa benn oustaz oustaz Pape Anne oustaz Pape Anne moomu noonu euh, mbokk soxna soosu la Adama Arlet Ka ñoom ñaar ay mbokk lañu parce que xam na ay waajuram oustaz Pape Hann seedalu rafet ci waajuru soxna soosu ne nag sëñ Ablaye Diop xaas moytul soxna si. waa léegi sëñ léegi bu ñu xoolee ci vidéo yi ndaw si ba muy ñëw kër xaas. yoroon naa ay kayit ak yooyu nu mu fa demee loolu. loolu loolu loolu dinaa ci ñëw loolu dina ci ñëw parce que dama bëgg récapituler expliquer histoire bi nu mu demee en réalité. ok ñëwal léegi ñu dem ba ci biir. Euh, ndaw si euh, euh, ni ñu ko mën a waxatee sëñ Ablaye Diop xaas jox ko kër mu ne ko naa jox kër gi kër gi maa ngi la ko joxe à cinquante million mhm. yaa ngi dégg waaw dama la koy wanteer parce que kër boo xam ne tabax nañ ko étage dëkk rek moo des cinquante millions tuuti na ci àdduma yow xam nga ko mhm. comprendre nga léegi ndaw si d'accord ne ko man nan la ñuy def sëñ Ablaye Diop xaas sa moo ko ne nan la ñuy def ndaw si ne ko man kat yor naa benn oto 4x4 Prado 4 x Prado boobu noonu mu naxoon sëñ Assane Kane hmm. moom la ko jox ak 8 million 4x4 Prado bi ñoo ngi ko 4 x Prado bi benn notaire la ñu woo notaire bi estimé 4 x bi mu toll ci 8 millions waaw yaa ngi dégg ba tollee ci 8 million tas pour ci 7 million 4x4 Prado bi ak 8 million soxna si joxe ko pour muy 15 millions on xolé ci papier yoy boko ko ademo, Adamo gis nga papier bi ah? wa papier bi notaire décharge xamal ne kat Ablaye Diop euh jaay na soxna euh, euh, à une hauteur de 50 millions wa moy ça. non loolu kii bi la euh, décharge bi la waaw moom mooy loolu am na benn boo xam ne moom dañ koo non du bii waaw ci bii la mais ci suuf la nekk quoi am na benn bu gën a bu gën a bu gën a leer voilà merci yaa ngi gis ma ngi 4-4 Prado 8 millions yi 8 millions la joxe liquide ak 7 millions yo xamne 4-4 Prado bi mom lañ ko estimé lay gis. Mhm. comprendre nañ 7 millions yoy non la ko à une hauteur de 15 millions legui 15 millions lañ japp ne soxna si la avance 15 millions boko dindé ci 50 euh, millions ñaata Adamo xaw ma cinquante millions mooy quinze millions trente cinq ah? millions. léegi nag baaxul. ah. ko de calculer ko. waaw trente cinq millions léegi trente cinq millions yi nag notaire bi ne ko. yow léegi kañ nga ah. nangu fay. ñu may ko benn durée de neuf mois. Hmm. neuf mois yooyu noonu. bu ko ndaw si fayul. bu ko ndaw si fayul. dinañ ko saisir. dinañ dinañ dinañ dinañ restituer euh, euh, ki bi nuñ ko mëno a restituer restituer ki bi nuñ ko mëno a kër gi ak tamit mu perdre 15 euh, millions yoy mu joxe parce que yoon non lay doxé waaw comprendre nga. Mhm. légui nak ndaw si ndaw si euh nak ok d'accord na. Hmm. ñu dem ba ci biir ñu dem ba ci biir ndaw si. mu am problème fay waaw Abdoulaye Diop Khass sax may na ko presque ab diir. presque mm-hmm. dix euh, euh, ni ñu ko mën a waxatee neuf mois yoo xam ne. Mm-hmm. ba léegi ndaw si réagirul deux ans mm-hmm. romb. léegi nag yoon def devoir am yoon def mbiram. comprendre nga yoon ñëw fekk ci ndaw si nangu kër gi delloo ko ab Abdoulaye Diop Khass mi moom kër gi. ndaw si topp sëñ Ablaye Diop xaas amoon na benn moment ñu dégg ñu ne sëñ Ablaye Diop xaas traduit en justice pour escroquerie. Mm-hmm. yaakaar naa presse yëpp bind nañ ko. te xamuñu nu mu demee. Mm-hmm. sëñ Ablaye Diop xaas dem wuyu ji yoon. ba mu demee wuyu ji yoon ñu classé dossier bi sans suite mooy sans suite boo ko déggee Adamo mooy euh, dossier bi yoon tranché na ko amul dara lu ñuy toppee sëñ Ablaye Diop xaas. Mhm. comprendre waaw légui ndaw si kon mo perte. Mhm. parce que yoon lol la wax dossier sans suite classé sans suite moy amatul dara luñu topé toppee Serigne Abdoulaye Diop Khass ndaw si tamit amul dara luñ koy topé ñom ñaar ñëpp mhm. zéro égalité nul ñom ñaar ñëpp perte ñoom ñaar ñëpp amul dara luñu ñu lu lu leen quoi. waaw ñu dem ba ci bir euh ñu ko mënoo waxatee euh, ndaw si. en fait euh, euh, euh, loolu noonu doyu ko mu commencé di stigmatiser jëmm sëñ Ablaye Diop Xaas nekk ci média yëpp di wax lu ko neex wala di yàq deram wala dara sëñ Ablaye Diop Xaas yërmandeem aussi tamit topp ko mu woo ndaw si am na am naa ay vidéo yu ma la yu ma la envoyé yoo xam ne yaa ngi toog ci sa salon ma ngi toog ci salon yam sëñ Ablaye Xaas di ko jox xaalis mhm. am na vidéo yu ma la envoyé waaw loolu wan nga ma ko de mais. Euh, waaw vidéo yi est-ce que sama téléphone bi kii ma kii ko mais daal am na daal dëgg la de. waaw waaw yooyu mooy wan ne que sëñ Abdoulaye Diop Khass daf ko woo jox ko 5 millions. Mhm. pour juste ndaw si en fait mu mun lu mu mun a doylu. waaw. parce que moom 15 millions yi da perte. Mhm. léegi nag 5 millions yooyu noonu mu ko jox. juste pour mhm. jàppale ko rek. parce que mënoon na ko si bañ a fekk su ko neexoon mu ne ko demal fu la neex parce que man maa la gagné ci projet bi. waaye dañ ko jàppale loolu te yàlla tax mu ne ko nag leneen li ci des nag dinaa xool nu ma la koy nu ma la koy nu ma la koy nu ma la koy jàppalee. te yàlla tax parce que liñ ci jublu rek mooy si Abdoulaye Diop Khass comme nitu nitu mbooloo te Sénégal xam nañ ko. Mhm. buggul buggul di am ay ay ay ay ñaawteef ak soxna si ci yenn mhm. yooyu noonu moo tax mu jàppalee ko noonu. mbir bi noonu la demee. Mhm. mais ndaw si ci gàttal daal. ba ñu pare témoignage yi ñu jot ci ndaw si doy na waar en tant que média doy na waar ab aaduma ok léegi gars yi daal li mu a leeral mooy maire bi daal bàyyi leen ko xel du maire bu jóg day ànd ak nit ñi affaire yooyu léegi nag maas waaw mu mel ne affaire yi leer na gars yi dégg na lépp léegi yow looy conclure waaw loolu laay conclure rek di wax ne que Sénégal moom ñoo ko bokk te nañu nañuy faral di def lu baax surtout euh, suñu suñuy yaay yi suñu raq yi suñu raq yu jigéen yi suñu mag yu jigéen yi ñuy def lu baax te nga xam ne aussi tamit yow Adamo euh, du la du ma la conseiller mais aussi tamit baax nga fi baax nga ci réew mi parce que tamit yaa ngi yar nit ñi nit ñi nit ñi sax léegi bu ñuy def dara sax dañuy xalaat bu baax a baax lu ñuy def am na mhm. solo loolu daal laay wax daal bon di la di la jaajëfal bu baax a baax quoi